combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha moo dajeek ñoom fi mu ko teg bëri na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mu sama kopp xool de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man bu baax a baax ah yéen suñu internet yéen ñi topp ci Leewtoo TV biir réew ak bitim réew événement bu mag moo amaata ah, ku ko taxawal suñu papa Gaston Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise tey nag fan lañ nekk yaraax xale bi nga xam ne moo war a bëre doomu Double Less ba di Sa Thiès kala di Moussa Ndoye ñu naan ko la dauphin le dauphin blanc deux jours avant combat bi ñu ñëw fii ci koñam xool supporter am yi ay xaritam waa koñam dëkkandoom naka la ñuy préparé combat bi Bilal dañuy daal dugg rek xool ambiance bi nekk biir yaraax ah xool supporter waxtaan ak ñoom naka la ñuy préparé jour J ah, contre Salif Sakho kon a daal dugg rek xool leen ah Bilal trio bi du mën a ñàkk mu moo maane Bilal Ndeye Mbacke Diop ah dañuy dem xool naka la. <laughs> Thank you. kan Moussa Ndoye ak ay ñoñam ñi ànd ak Moussa Ndoye di waajal bis bu mag le 26 diggante Sa Thiès waaye nag dañoo ne ku ñeme rek dañ laa déy ba tax na Moussa Ndoye ñi mu àndal la ñuy waxtaana xool naka la ñuy waajee combat bi sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa bàyyi nga nuyoo nga présenté wu internet yi. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Yaraax di nuyu fukki pencee ak ñaar yëpp di nuyu fan si club bi eh, di ko jiite ci sama bopp man maay président bi. di nuyu Pape sunu mag la sunu lépp la di mhm, nuyu Serigne Faye Babacar di nuyu Serigne fay ak xale yu ñu àndanteel yëpp Marème Gaye ak euh, Assou ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ñoom lañuy àndal ci liggéey bi mhm. ngeen di waajal bés bu mag jëm le 26 di bëre xale boo xamante ni ku ko tudd ci làmb rek loxo dar gémmiñ naka ngeen koy waajee waaw ñu ngi koy waaj comme ni doon waajee yeneen combat yi rek mhm, ndax bés tuutiwul ci ñun bis bu nekk làng nañ ko fii Moussa sëgg na ko bare ñu si doon ànd ak moom di ci am lu ñu bëgg noonu la ñuy waajalaatee bii rek di ñaan yàlla yàlla may ko ci ndam lu sedd guy. Bilal dañuy bàyyi mu présenté ñu ñeneen ñi rek ñu daal di ñëw xuus ak moment ah. kii topp sa wet mooy kan. kii Pape koy wax moom mooy suñu magu fan si club ba pare moom moo yar musaa dañ mu nuyoo. waaw ñu jox ko waaw Pape mu nuyoo waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal di leen wax dal leen ak jàmm yéen ñi nga xamante ne yéen ñu seet si tey dañ ci am mbégte lool pour dalal leen kontaan nañu trop am nañu mbégte lool dalal leen si yéen tey fan si club baa ngi nii waa Yaraax a ngi nii tey jii boo ñu xoolee xam ne ñun ñii dañoo pare pare nañ ci lépp kontaan nañ ci émission bi nga xamante ni moom ngeen ñu defal dañu ni bëgg yëg moo koy fay li ngeen wane tey dafa wane ni bëgg ngeen ñu ñun yég nañ leen moo tax ñu dalal leen tey jii dañuy gërëm waa yaraax population yaraax bi yépp di leen wan ni leen seen taxawaay rafet na xaaru leen ñu ci dara génn si ngeen taxawaay bi rafet na boo xoolee lii rek xam ni Moussa moom pare na fu mu woote ñu jóg tey ay réglage yu ndaw moo ñu dese woon rek te incha allah rabi presque jeex na. préparatif fii administration maanaam si wàllum supporters yi ci lan ngeen toll. waaw tey jii mën naa la wax ni la suñu meeru dëkk billet yëpp jënd na leen oto yi amul manqué ku demu daal ci yow la te boo tourné ci au niveau de hiérarchie ni ma la ko mën a waxee mooy population bi ñoom liñ leen di woo ñooñu ci jiitu ñëpp mobiliser wu nañu. tey ku ñëwoon na open press Moussa dinga xam ni yaraax jóg nañu te yaraax ñoo jël kombaa bi kon nag defe naa ne bu dee ci au niveau de yaraax ci fans club ci population bi ñëpp pare nañ pare nañu nag dem stade rek moo ñu dese. li may tàggatoo ak yow nga nekk ci wetu Moussa Ndoye jege ko. à deux jours du combat wala veille combat lan nga koy conseillé niveau bi ñu toll nii lan la gën a soxla mbër bi. waaw mbër mi dañu ne ko liñ koy sant mooy entraîner ñëw tëdd noppalu dal. Mhm. duggul ci lenn deful lenn liñ ko sant daal mu nga ca boo ñu commencé ba léegi liñ ko sant moom mu ngi ci mooy entraîner ñëw tëdd. Mhm. loolu rek lay def nii. Mhm. amul leneen lu muy def lu dul loolu. tey nag ni ma ko waxee mooy ñun pare nañu daal si gàttal. nañu ci lépp. fànn yëpp pare nañ ci. li ma la cosee mooy psychologiquement ngeen di bëri doomu mbër. waaw raqu mbër mu am population yoo xam ne ñëpp xam nañ Sa bu jógee Guédiawaye jóg bu géej jógee Casamance jóg psychologiquement ci wàllum supporter est-ce que pare ngeen pour dëkku supporter yi ñuy indi ngeen fekk stade. waaw comme ni ma koy waxee rek toujours mooy bu fekkonte ne ñun dañu bëgg lu yomb du ñu jël Sa Thiès daanu nañu am na ñu bari bu ñu daanoo dañuy seeti ji lu yomb ñun dañoo daanu ba pare jël Sa Thiès kon nag mooy dañoo wóolu suñu bopp. moo tax ñu jël Sa Thiès pour bëre moom. Mhm. risque boobu lan moo ko waral da ngeen xool ne Sa Thiès nooy neex la wala da ngeen jàpp ne boo doon ko daanee ci kaw ngeen jëm wala. waaw xam nga ñun bokkuñu si mbër ya nga xamante ne dañuy taamu lu nooy. Mhm. ñun boo xoolee palmarès su Moussa Ndoye ñi mu jël ñëpp ay ndaanaan lañu. Mhm. ñi mu daan ñëpp ay ndaanaan lañu. kon nag wóolu suñu bopp wane su bëgg wane suñu bopp moo tax ñu jël Sa ban conseil nga jox supporters yi ma ñëw ak président. supporters yi li ma leen di wax mooy jóg leen. préparé wu leen combat bi seen combat la mobilisation di ngeen gis mobilisation boo leen mësul gis ci côté Moussa boo leen mësul gis incha allah rabbi ñu dem daan ñibbi si waat loolu la ñuy ñaan yàlla mu ngi noonu ah, suñu tonton Pape Sidi moo xam dañuy dellu si waat ci président président jëlaatal micro bi fan ngeen toll jigéen góor mag ak ndaw waaw mobilisation bi waaw mobilisation bi ñun moom noppi nañu quoi daanaka parce que ku xool open presse bi ni ko xam ni donc ñun noppi nañu daal ndax yaraax mobilisé wu ñu but ba but kenn desul kenn desul du góor du jigéen du mag du ndaw euh, ñëpp pare nañu pour waajal bés bi wax naa leen ko kon presse bi fi njëkkoon ñëw nee naa leen huit heures dina fekk ñu añ quatre heures du matin la ñuy ndekki incha allah taala. Sa Thiès nee na war a ñëwee dix heures sax nee na fekk stade bi fees waaw Sa dafa bëgg rek ñu ngi koy dégg muy wax rek sànn ñun ñu wax xam nga tubaab nee nañ les tonneaux vides sont beaucoup de bruit bërigo bu def du yëngutu dana dégg waaw moom mu ngi wax rek ndeysaan mais ngënal yëpp ci loxo yàlla la nekk moom xamul loolu lu ko neex nag mu ngi koy wax mu ngi ñuy xas mu ngi ñuy balaama mu ngi wax lu nekk waaye na bàyyi xelam ni ndaanaa ni lay bëreel muy Moussa Ndoye Sa matul mille kees Sa Thiès matul mille kees <laughs> loolu wala mu ñemee Moussa Ndoye autant dafa foog ne Moussa la wala day ñëw xas ko dem waaw déggoo li xale yi naan dafa bëgg rek dafa bëgg rek di wax moom mu ngi wax ne Moussa du ko xool mhm. bu xoolee kanam Moussa Ndoye dina xam ne kii du ragal doomu ndox la Moussa Ndoye. moom jàpp na Moussa du ko xool ci bët de ñeme ko de. waaw loolu ñi mu dendal la koy wax ñun ñii dem ak moom signature gis nañ Sa Thiès saa buy ñëw sama wet lay taxaw maa ngi koy xool du sax fixé Moussa yàlla moo tax may wax ci télé laay waxee du ko xool dafa bëgg rek Moussa mënewul wax dañ ko yar mën a wuñu wax bu bu arbitre sifflé ba ñëpp génne dina xam ndax tàppet la jàkkaar loolu wala gaynde ci biir géegu Sa Thiès Moussa Ndoye ñoo fay nekk waaye ci kaw tribune bi yéen a yëngal waaw ñun ñooy yëngal ci kaw moom mu yëngal ci suuf parce que loolu la digaaleek ñun te saa bu ko waxee def na ko mm-hmm. waaw amuñu dara lu ñuy tiit ndax yaraax la ñu toogee. man ba léegi damay insiste ci wàllu mobilisation bi ndax Sa Thiès boo waxee mooy man 10 heures damay mun damay ñaan Gaston mu ubbi stade bi dama ko war a feesal dellu yéen est-ce jàpp ngeen ne yaraax kese mën na dëkk jour boobu combat boobu noonu wala Moussa Ndoye fam ay supporters ailleurs. waxuñu waxuñu sax euh, fukki peñcee ak ñaar yi war a teew waxuñu ñooñ de. waa géej gi sax dañuy ñëw. wala fukki peñcee ak juróom-ñaar yi ko dajal waa ñu comprendre loolu. <laughs> waaw loolu loolu ñun lébu ñoo ko xam fukki peñcee ñaar yi déggoo may la waa géej sax dañuy dem stade bu benn nit jóge woon fi dem stade waa géej gi ñoo koy feesal moom na waaj loolu ay lébu lay bëreel duñ ko may dara yàlla moo tax may wax dina gis lu mu mësul gis billaay psychologiquement parewul ñun xam nañ Sa Thiès ñi mu signatural ñëpp gis ngeen ni mu doon waxeek ñoom seetlul li ma la wax bu ngeen demee ngeen xool ko nee na combat bi da koy day ragal daan ko daan bu yomb ñu naan daan bi dafa yomb lii lii lii war warul nekk quoi yoon génteem lay wax noonu maa la wax lii su làmb ji paasee fu ma nekk dama ñëwal nga wër ma ma wax la loo xamul woon. Mm-hmm. Mm-hmm. nga yor su côté nekk seen président ñu gis làmb ji phénomène bi fi am instant bii. Mm-hmm. bu ñuy face to face. bu ñuy bëree lépp. supporters yi ñu ngi jàmmaarloo ci kaw. ñu ngi xuloo ñu ngi ŋaayante ñu ngi xet affaire du loolu est yow yaa ngi mobiliser di sensibiliser nga xam ne yaa ànd ak ñoom pour jour yi ñu mën a dëkk loolu bañ bañ bañ loolu dal leen. waaw yaraax moom ñun baaxoo ñu yàq làmb même bu dul làmb sax sport yëpp. ñun du ñu toj dara du ñu yàq xamuñu ko sax yàlla xam na ko yaraax yar ak teggil na leen di bàkkee balaa nga ko doon xam tey nga jóge fi dem nekk feneen waaw loo teg loxo rek yàlla barkeel ko ndax mag ñi ñoo fi jaatu ñoo fi ñaan te balaa émission bi di jeex naa naa la wax ñetti ñi nga xam ne taxaw nañu wax li yaraax di jariñ ma wax la ko te àdduna ñëpp dinañ ko nangu parce dégg nañ ko waaw fii dëkku barke la waaw ay wàll yu doo nga fi nekk waaw li may wax ni làmbatuwuma ko dama koo xam ndax man doomu kilifa laa. lu leer la waaw. est-ce que xaw cee xaw cee barkeelu en ah, bilaal. Mhm. tojal ñi barkeelu ci. waaw xam nga sëriñ Babacar si dafa wax ne yaraax ci sama poos loolu kenn du ko kenn du ko waxal loo xam ne safaan la mhm. sëriñ Mansour si wax ne Jamil ne yaraax mooy sama seetu su ma bëggee gis sama bopp fii laay ñëw. Mhm. waaw sëriñ kër si moo wax loolu ne yaraax ci sama poos Serigne Mansour ne yaraax mooy sama seetu mhm. Seydi Jëmil ne yaraax mooy sama wanag maanaam mooy sama sutura waaw te Seydi euh, Gaynde Fatma fii la dëkkoon tey fii monsieur le maire sanc nii tey mhm. waaw Seydina Limaamu jaar fi mhm. kon lu baree baree ngi fi fii ay wàllu yoo fi nekk saa cee sa ngi wax rek nag dama bëgg mu noppi moom laa koy adressé na tëj ñu gis Moussa combat bi damay xuus tuuti Moussa Ndoye tuuti rek ñu gis mu mise ci mystique bi de trop gis naa sax ci open press bi bi ko joxee micro fi jël euh, euh, torsion jàppee ko euh, micro bi ay tegtal la wala mbër bee ni toll mbër bi moo am dayoo bi waaw loolu loolu baaxaayu làmb la baaxaayu làmb la boo seetaanee Sa ñu gis nañ ko moom it mu def ko ci yéen ko gisee waaw kon waruñu toppandoo parce que ah, nawloowuñu li leen wokk rek moo ko xuri li ngeen di bañ nag lay bañ moom nee na nawloowuñu mhm. wax jooju da ko rëcc mhm. mais ñu ngi ñaanal way juróom bi yàlla yàlla yëkkati ci nawle la duñ ko wax dara lu ñaaw ndax mhm. góor du xas moroomam mais comme lébu la xas na toog xaar ba bisu làmb ja ci li may tàggatoo yow daal jàll ci ñeneen ah Moussa Ndoye am na combat ñëpp xam nañ ne Sa Thiès mbër bu dangereux la ndax un day attaqué te mbër bu la burul xaar. Mhm. pour nga bëri moom day metti lan ngeen di conseillé Moussa Ndoye niveau bi ñu toll nii. waaw Moussa li ñu koy wax ci conseil bi ñu koy jox mooy li nga xam ndax dafa neex a waxal yàlla xam na ko boo yow mii boo ko woon na ko Moussa lii laa bëgg nga def ko da koy yóbbaale parce que du tiit du tiit moo tax donc ñun li ñu ko war a wax defe naa moom nee na bu demee laa làmba jo luñ ko wax ñun moom lay def mhm. loolu la wax. presse bi yëpp. Mhm. kon amul dara loo xamante ni pression la ñu ñu gis bu ñu gisoon pression ci moom doo ñu gisee du ñu nekk à l'aise mhm. fi fanaan ba 4 heures matin mhm. ñu jóge fi sangu jàpp julli wasifa tëdd tuuti yeewu dem liggéey moom moo ñu ko jaral. Moussa kon donc amuñu loo xam ne ñu ngi koy tiit ci moom yàlla mi ma tiim xam na ko ragaluñu loolu. mais fair play bi laa bëgg nga institut bu baax fair play bi. waaw fair play bi bu ñëwee waaw a xam ne ñoom ñaar du ñoom ñaar bëri ñoo loolu dama ciy insister sax ndaxte euh, jullit du tooñ te ñun xamewuñu ñu tooñ Moussa du tooñ mhm. te ñun ñi mu xamante ni moo ñu jabootu du ñu tooñ ñii suñuy kilifa lañu te ci loolu la ñuy àdd ba ci per père Ngouda Sarr mi moom tooñ rek la bañ mhm. waaw te moom it kilifa la ci Moussa kon ñun it toujours loolu la ñuy wax ndax ñun li yonent bi waxoon rek ñun ci loolu la ñuy doxee ak demani rabbi fa ahsana tahdibi yàllaa ko yar te ñun yonent bi lañ ñu royloo mhm. kon du ñu def dara loo xamante ni nii donc euh, acte d'indiscipline la ci yar rek la ñuy dox ak teggin te fu ñu toll ñu ngi koy wax ñu ngi koy def du ñu tooñ mais ku ñu tooñ ku ñu tooñ ñu wane suñu bopp waaw tooñ daal la ñuy bañ ndax yàlla du ànd ak koy tooñ. Uh-huh. Mhm. président yow yaay tëj mais dañ dañ danga may aal micro bi ah. danga may ma daal di nuyu ñi ma toogal daal di nuyu mon sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa lay fay soxna si. tur bi naka la. Ablaye Wade. Ablaye Wade président wala. waaw ex président ex président ah dañ koy béggee bu baax moo wàdd ñu fekk la fii ci fan si Moussa yi lan ñu mën a wax ci Moussa Ndoye waaw gannaaw bu leen nuyoo di seen jotaay bi Moussa lu ma mën a wax si moom bëri na bëriwut parce que je pense que ni li la gars yi wax moo nekk ci moom mais Moussa doon na koo xamante ne luñ la wax ci moom rek am na luñ bàyyi te nekk na ko am ku neex a nekkal la te dafa dégg ndigal xale bu ndaw sax bu ko rombee bu nekk Moussa kaay mu ñëw sëgg dalay déglu ba pare soog a dem loolu moom xam naa ko ci moom. Kantaa nag leneen li des moom yéen a ma gën a xam jarul ñu si. da nga koy denc lan ngay wax Sa Thiès mi adversaire am. Ah, saa. ñu ngi koy ñaanal moom mu am wér. wér rek. que moom dañ ko defal promo te Moussa moo defal boppam promo. parce que bu ñu nee Kouy Seba ñuy dugal lees loolu rek doy leen am. Mm-hmm. mais Moussa dafa xàllal boppam. kenn triché ko moom moo xamal ko ko mhm. di ñaanal waajuram bu góor fa mu tëdd yàlla ko yàlla jóg ak jàmm di ko jóg mhm. looy looy wax supporters yi ñun yaraax ni ñu xamee benn ah, fair play la ñu mas a xamee. Mm-hmm. fair play comme ni ko Moussa waxee bu bëggee ñu defar ay ñun ñun sax bu bëggee fan si soo defar t-shirt Sa Thiès ñoom ñu defar t-shirt Moussa la bu ñu demee ñu bokk place. parce que lépp sport mooy gagné. Mm-hmm. mooy gagné. Mm-hmm. mais am na yenn wax yoo xam te mën na ñàkk. yenn wax comme yan. boo war ñoo xeeb. dana la xeeb. Moussa Sa dafa xeeb Moussa. léegi la mooy sa gis-gis loolu. Ah, jour si incha allah dana xam li dana gis résultat rek loolu moo am solo waaw loolu moom moo ci am solo daañu ko wane que ñoo mën ci kaw mën ci suuf. ah Agnès nee na moom mooy dirige combat bi ni mu ko bëggee ndax fit bi may nokk ko sañ-sañ bi may nokk ko doole gi may nokk ko da jàpp ne moom Moussa Ndoye moo ko mën ñaari yoon. waaw loolu waxu mbër la rek parce que bu la caméra yi nga lekk say glace ba sa biir bi fees dell da di wax rek mais dañoo am lu bëri loo xam ko ñun boori géej gi daf ñoo jege lu ñu lu ñu amul si ñun la kenn xalaluñu mooy li mu ko wax wax na bañ expliqué jour ji yàggatul uh-huh. bu boobaa na dëggal boppam rek uh-huh. dëggal boppam rek lan lan ngeen wax Moussa Ndoye mu bëree ko jour ji non Moussa li mu war a bëree loolu ay coacham ñoo ko koy wax déedéet moom nee na supporters yi waa yaraax liñ ma wax hmm. loolu laay bëree yéen lan ngeen koy dëggal mu bëree ko waaw loolu wala yéen tiit Sa Thiès nu mu demee noonu <laughs> ah, ah danga ko wax te dee tamit ku xam Moussa. Moussa mun moo ñu jox confiance yooyu. moom moo ñu jox confiance. parce que dañuy gis li muy liggéey. parce que moom moo bëgg moom moo ko bëgg. combat bi combat yaraax la. combat Sénégal combat lébu yi la. combat lébu yi la. bu boobaa wax ne xam nga matul mille caisse boobu da ngeen yaakaar ay kaf la. matul mille caisse. te kooku le jour yi dina ne matul muy kees. Bilal Ablaye ko wax dañuy nuyu suñ papa xoolal la ci sànni kàddu ah ñu dellusiwaat ndar képp waxtaan bi am ah. jox la micro bi sam papa nuyu ko. salaamaaleykum mon père maa ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. di la nuyu bu baax di la ziar ñu fekk la fii ci fan sa Moussa Ndoye lan nga ñu mën a wax ci Moussa Ndoye. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen yéen ñi waa Leewtoo yëpp. Mhm. ak ñi ngeen àndal. di sant euh, ñi nga xam ne président bi toog di ab Wade. Mhm. président école Ablaye Dieng ak président fan Serigne Mbaye ak waa club yëpp ak membre yi école de Ablaye Dieng. Mhm. coach yi bëri yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. waaw di wax ni ñun. Euh, question bi leerul bu baax sama bopp li nga wax nii. ma ne Moussa Ndoye lan nga ñu mën a wax ci moom instant bi ñu toll mi waajal combat mag diggante mag Sa lan nga koy conseillé boo ko doon conseillé. bon toll passé nañ ci moom conseil quoi avant muy jël combat bi lañ koy wax li ñu xalaat voilà. Mm-hmm. avant muy jël combat bi. Mm-hmm. wul pour Sa kese. Mm-hmm. voilà parce que defet la jógee te xamoon nañ ni mën naa am combat bu gën a coriace bi mu jóge donc bu jëlee combat bi daf koy xam comme combat yu mu doon bëree rek loolu lay dem ah. Moussa Ndoye ci defet waaw da benn mbër boo xamante ni koo xam-xam ne am na public am na tur ci làmb loolu nekkul ci moom. am na public am na tur ci làmb. parce que ku ne Sa Thiès xam ne ndaanaan la nekk doomu mbër nekk rakku mbër loolu pression ci Moussa Ndoye jógee ci défaite. waaw mais xam nga làmb nekkul euh, mbir boo xamante ne da ngay doog nekk doomu mbër wala doon doon doon mbër pour dem nekk ci dara. am na fi ay champion tey yoo xamante ne xamuloo seen waajur ci làmb mhm. n'est-ce pas donc moom peut-être papaam nekk na mbër nekkoon na mbër hmm, magam nekk na mbër parce que ça n'a rien ak mbër a ah? mhm. parce que am na doomu Double Less yu mhm. am na ay doomu Double Less yoo xam ne bëriwuñu uh-huh. n'est-ce kon donc ñun basé wuñ ci tur bi basé wuñ ci parce que doomu mbër la adversaire u Moussa Ndoye la ñoom ñaari ay sportif la ñu dafay mel comme équipe bu football rek ñaar ñu daje di football li sport de combat la loo tax mu nekk ñaar nit mais pas ay doomu dubalee sa ay doomu nangam yooyu moo yàq lamb mbër nekk am nga sa baay te ku nekk mbër nga ci li nga doon waaw ñii dañu takk ngemb nekk ci mbër ñi nekk leneen takk nekk mbër ci leneen hmm. ñu gis benn fougue de jeunesse bi am ci lamb ji instant bi bu lamb amee wala signé contrat supporter bu ñu ñëwee dañuy foog ne ñoom ñoo moom combat wala ñoo ñoo ko war a bëri instant bi lan ngay wax supporter yi ñu mën koo préparer en conséquence jour ji pour ku ci mën a ku ci nekk xam fi ngay yem violence bañ a am ci làmb ji waaw naa nga jóg yaraax moom dëkk sport la yaraax lépp lu ñuy wax ci sport am na fi ay champion soo demee ci rawan taggaat am nekkoon nañ champion soo waxee équipe nationale même 2002 mhm. am di fay fii la dëkk mhm. équipe nawetaan yi gën a ngand ci Dakar yaraax bokk nañ ci donc ñun yàgg nañ ci ay supporters mais li ñuy jëkk xam mooy yaraax dëkku mbokk la dëkku dëkkandoo la ñun dañu yar uh-huh. dañu yar lu mu xum xum dañu yóbbaale suñu yar dañu yóbbaale suñu dal uh-huh. donc làmb nag li ci am léegi li ci ëpp ñu ci yàq li ko yàq nga baal ma quoi seen mbokk journaliste yi lay nekk ñoom ñu ko yàq parce que ñoo dem ba bëgg génne ci kaagal sport di ci wax ay askan wala ñu kiy wax xeet xam nga bu ñu demee ba naa la diw doomu champion la wala diw dafa am mbooloo wala nàngam nga xamante ne moom dafa am mbooloo est que moom moo créé leen maanaam mbooloo bi ñoom ñoo booloo ñëw jox ko seen bopp mais pas moom moo dem ko amee ni nga war a mooy doomu jàmbur yi ñëw ci ñëw nga xam bu dee amee ah. jàpp ñoom la ñuy jàpp nga wax leen dañu war a ah. yar la d'abord ama ah. nga yar nga dal xam ne benn quelques minutes ngeen di daje rek mu jeex mm-hmm. mu ne waaye maanaam supporters yi li ñu ko digal rek jour loolu lay bëree yow sama papa nga nekk nga nekk papaam instant boo doon conseil la nga koy conseil mu bëri ko soxna si kaay. Moussa déggoo li ma la moom ci boppam xamul lu muy bëri. Mhm. moom ci boppam xamagul lan lay bëri ñun du ñu liggéeyee noonu. Mhm. maanaam boo déggee mu wax loolu dafa la wax ne ne Moussa musaa ñëpp la. Mhm. ñëpp am baat ci moom. maanaam li ñu koy bëgg mooy yaru respecter sa adversaire bi bu commencé bëri ba léegi mosu leen dégg Moussa Ndoye communiqué ñu yedd ko. parce que ñun duñ ko bàyyi ci noonu xam nga yeneen mbir parce que da après bëre day nekk leneen. voilà c'est pour cela moom ñu a bëri mi ngi entraîné. dañ bëgg bu sumee xam ne entraîné na. xam ne kii pare na. leneen li ci des coach am mooy moom ci néeg wax ko. waaw. mon père loolu leneen dama lay jaajëfal bu baax merci beaucoup ma continuer ak soxna si daal di waxtaan ak moom ñu jaaree fa tëj émission bi ah. soxna si maa ngi lay man lay fay tur bi naka la. Marème Fall dinaa gën mhm. baax ngeen di waajal combat à de deux jours bi naka ngeen koy waajalee. waaw mu laaj daal incha mhm. nga nekk jigéen di di jàppale mbër loolu métti na. waaw ah, métti parce que boo bëggee daal yéen bëgg ay ëpp yi daal dara du métti ci yow. man. Mhm, mhm. lan ngay wax Moussa Ndoye. Moussa wax rek mu dar rek bañ bëree public xam nga. Mhm. lu muy def baax la dal daal lu dalee rek dana xam li muy def. koy wax. Hmm? Sa soo koy wax. Sa Thiès koy wax ah ngeen di bëri moom amoo loo ko wax. koy ñaanal yàlla daal mu wér daal. na wér daal ñëw daal incha allah rek. mu taxaw loolu nit dóor mu daanu wala bëre. lu mu laaj rek ñu def incha allah. <laughs> a tiit xanaa instant bi nu mu demee noonu. <laughs> dañuy tiit lan la bëgg ngeen jox ko mu bare bëree bi noonu lan ngeen bëgg dóor mu daanu wala. Hmm, lu mu laaj ñu def ko incha allah. Hmm. waaw ñun duñu tiit duñu ragal ay lébu lañ lébu du tiit du ragal. dañuy joow gaal. waaw dañuy joow dañuy def lépp <laughs> waaw. bala ngeen dana ban heure ngeen dana ñëw stade. stade. Mm. incha allahu rabbi borom stade bi nekk huit heures bu ma nee tijji rek na tijji ndax incha allah añ dina pare. añu neuf heures. bu kenn dégg. bilaa fi laa añsee fi la ñuy añsee. kenn du nekk incha allah yaraa. Mm-hmm. kenn du nekk ceeb la ñuy déggee. ban message ngay lancé supporters yi. supporters yi di wax rek ñu ànd ak dal ak yaru. yaru daal ndax yaru lu daal du la xam nga supporter seen mbër yàlla may ñu si jàmm ñu bis si jàmm. Mhm. waaw bu kenn mer ba def loo warul def. Mhm. loolu daal laay ñaan daal supporter mhm. merci beaucoup soxna si maa ngi lay bëggee bu baax a baax Miss Kaay kay toog fii merci beaucoup. dama koy nuyu bu baax a baax di bàyyi ko mu nuyoo présenté wu soxna si maa ngi lay nuyu. waaw ñoo lay fay bu baax kontaan bi naka la. Awa Niang. Awa Niang ngeen di préparé bis bu mag naka ngeen koy waajalee. bu baax ndax ñun moom yaakaar suñu mbër moom kontaan nañ si moom wax dëgg yàlla ñun daal fi mu ne nii pare nañ moom comme pare na nañ ko bàyyee si suuf ñu ne si kaw. ah moom mu yëngal ci suuf. ñu yëngal si kaw nga yëngal ci kaw. ci loolu laay wax yëngal boobu noonu. est-ce que yéen a ngi sensibiliser ku ci nekk ci yéen parce que ku ci nekk acteur acteur nga jour boobu ci non violence bi am ci làmb ji nga xam ne jour boobu jour bi kenn du ko gis si Sa Thiès kenn du ko gis si Moussa Ndoye loolu moom tamit ñoo ngi siy waxtaan bu baax a baax parce que bëgg nañ dem stade dem fa dem bu rafet ñibbise ñibbise bu rafet. Mm-hmm. am ñaan yàlla yàlla may ñu si ndam ñu dem si bisimilah ñibbise alhamdulilah rabbil alamin ba benn lii du fa am. Mm-hmm. benn xeex dafa am wala xuloo bu naan ñoo ngi jóge si waa Yarax loolu tamit ñoo ngi koy lii. Mm-hmm. Yarax moom mën nañ mobiliser trop. mën nañ préparer combat mën nañ dem def ba mu baax mais doo leen si ay xeex ak histoire yooyu. moom amu fa. d'accord mosu ñoo dem stade ñëw ñu ne waa Yaraax fi xeex wala lii wala laa. Mhm. làmb ji ñëpp a baat boobu nañu lii te loolu dañ koy sàmm. Mhm, d'accord jërëjëf jëfe maa ngi lay bëggee bu baax baax. merci kontaan nañ merci beaucoup. ba léegi ah, ci émission bi la ñuy des euh, fan Sa Thiès fan Moussa Ndoye ci Moussa Ndoye la ñuy nekk président d'organisateur d'organisation bi la ñuy waxala ah. nuyu naa la bu baax di nga nuyoo waaw fay naa la du nuyu ñu ñuy seetaan du nuyu Sénégal yëpp di rafetlu ci seen teewaay vraiment waaw. nga nekk président d'organisation jëm ci bis bu mag naka nga koy waajalee. waaw ñun macha allah pare nañ pare nañ ci domaine bépp bépp mbër mi pare na macha allah fu mu nekk nii li ñuy wax mooy que wax ji mën naa bañ a bari. Mhm. que le 26 incha allah yaraax moo ko moom ci kàttanu yàlla. waaw le 26 soose bi du soos. ah. waaw foo teg loolu. parce que matul 1000 kees. moom jàpp na ne au contraire Moussa Ndoye moom moo matul dara parce que moom moom Moussa ñaari yoon. waaw moom xalaatam la wax rek moom leer na ko ne ba mu jëlee avance su Moussa nelawul te musaa jour bi muy jël avance bi yàlla mi ma tiim xam na ne géej lañ nekk di entraîner. man wóolu naa sama mbër Moussa pare na macha allah bu boobaa musaa dina ko as dina ko wan ne matul mille Thiès. Moussa Ndoye neen lu ko supporter yi wax loolu lay bëri yéen boo ko waxoon conseil bi la nga koy conseillé mu bëree ko. waaw li ma koy conseillé mooy mu dal parce que nee nañ day ñëw te yaakaar naa Moussa gaynde la bu ñëwee rek dajee gaynde gi te yaakaar naa ku dajee gaynde ma gën a xam li nga ciy def. mais dangay dangay avancé. yàgg mooy raw ësën bool. <laughs> Moussa da ko ragalam ragalu ko dina. lan ngay wax Sa sama mbër mu ñëw ñu daan ko ci jàmm ak salaam lépp Sénégal la quoi. mu ngi noonu merci beaucoup ah, dama lay kontaanee bu baax joxool ma ci keppandaar bi lañ jëmaa ah, ba ñu ubbee woon ah fa la ñuy daal di tëjee. Fama dama bëgg ci yow bu baax sama caméra mën bi ci yow li ma la bëggoon laaj mooy li nga xamante ne nii moom la ñuy ruu ruumandaat ci suuf di ko laaj ndax dëgg la am déet li ma for ci wéewu bëy daa amoon supporter Sa Thiès bu fi ñëwoon yow yaa ma gën a xam dëgg la wala du dëgg. nettali ci gémmiñu boroom la dàq waaw man moom damay wax dëgg rek. fekkuma fi mais gis naa vidéo yi parce que kii toog moo ko vidéo sama jarbaat la sama mago ko jur dugal ko ci groupe bi ñett lañu ñaar ñi daw moom bi mu ñëwee danoon doon màndi màndilu di fecc fecculu te fii dëkk bi ku fi dëkk ñun xam nañ ko ku fi dëkkul xam nañ ko donc ñu gis kaadaanteem gis géejawaay bi ñu wax ko muy lim ne du ak papam ñooy naan ànd di wax ay genre wax donc même bu fekkente ne ni yónniwuñu ko yàlla rek moo xam ndax du ma wax lu ma wóorul mais c'est pas le mu doon def loolu du moment boobu la ko waroon def parce que ñun bu ñu fa dem même bu ñu fa amee soxla araamal nañ ko ndax bu ñu tooñ donc mbër yi bu fekkee ñoom dañ koy santaane du ko def loo ay nit nañu xam ne ñooñu doomu jàmbur lañ parce que jamono neexul loo xam ne bu dalee sa kaw mu metti bu ko teg doomu jàmbur Moussa Ndoye du ñu yónni fenn ñu fay dem parce que du ñu ko sant parce xam ne risque bi ci ne kon ñoom bu ñu leen sant dara ñu koy def loolu supporter yëpp laa koy wax ak képp koo xam ne mu ngi ñuy dégg bu kenn jël risque ñu lay mm-hmm. bakkan dafa seer bakkan dafa cher loolu leer na naan ci nit ñi ah li ngay tàggatoo lan ngay jox message bi ngay lancé say supporter ak supporteru Sa Thiès balaa ngay tëj waaw di leen santaat ak yéen balaa may kii. di leen jaajëfalaat di leen massawu ci coono yi bu baax a baax. ndax ku ne xam na ne préparation combat dafa xaw a metti di gërëm suñu papa yi suñu wet Père Ngouda di gërëm écrit bi ñëpp bu ñu waxee Alioune Sarr yóbbaale na ñëpp géew. bu ñu waxee Pape Sini yóbbaale na ñëpp géew Serigne Faye. Marème Ngaye ak ñoom Abdou yi ñoom ñëpp ñu leen nuyu di leen ziar. donc di nuyuwaat waa dëkk bi ñëpp bàyyiwuñu kenn ndax damay bañ a lim rek ma juum quoi. Mhm. loolu laay bañ. donc di wax rek supporters yëpp muy ñun ak yu wàcc yokk Sa mhm. ñu def ñu ànd ak yar affaire bi discipline rek moo am solo mhm. àdduna yar rek moo am solo mhm. ñu xam ni affaire bi matul trente minutes incha allahu taala matul sax dix minutes mhm. ku nekk dem ñibbi te àdduna kenn xamul fan la mhm. bu rafetee tey rek boo liggéey gàcce mën naa bañ am mhm. donc ñu xam du ñu ay noon sport moo ñu boole ñu rafetal ko bu baax a baax ndax ñi boole ñaari mbir ñu bëri yéene leen moo tax ñu def ko kon yéene bi ñun nañ ko àggali muy ñu bañ a xeex ba ñu xuloo ñu xam ni lépp ci kaf ak ree rek lay mujjee ñu defee ko noonu incha allah parce que àdduna ñëpp ay bokk lañu ñëpp ci maam aadama la ñu sosoo donc fa la ñuy delluwaat waaw ñu xam ne du ñu ay noon daal ñu yemale ko foofu noonu mm. di wax suñu mbër ñu mu ko waxee na yëngal si suuf ñu yëngal ci kaw Sa Thiès encore une fois ñun du ñu ay ragal lébu yi lay xas xool caméra bi nga xoo ko Sa Thiès benn baat daa lay wax dégg naa la nga ne Moussa du la xool loolu soo ko waxee da ngaa bég da nga toog foofu di naan ataay di ko wax Moussa Ndoye ba mu la fixé signature ba da nga daw li la dal nag ci sa ñaari combat la la ñuy mu dal la fii nii tapet du jaayu te yow jaayoo la yóbbu loolu yëpp ndax ragal loolu laa koy wax waaw. merci beaucoup ah dama koy kontaanee bu baax comme ni ma ko waxee buñ ne événement mbër bee tax waaye buñ ne mbër supporter moo tax ndax sans supporter kenn du wax mbër mbër boo moom supporter kenn du la lim ci ginnaaw lañu lay bàyyi ba tax na ñii ñooy acteur yi su neexee ñoom ñoo ko neexal su naqaree ñoom ñoo ko naqareel bu rafetee ñoo tax mu rafet moo tax saa su ne dañuy dem fu fépp fu ñu nekk dékk leen suñu micro waxtaan ak ñoom naka la ñuy préparé combat bi comme nii ñu ko defee yaraax lañ nekk nag waaye moomoman day benn déviation bu ndaw ah ñu dem golf ah seeti Sa Thiès xool naka lay waajalee moom tamit jaajëf ah léegi lu mu si bañul man bañu ma ko ci na xam loolu bu baax loolu booñaa ma la wax loolu nee na booñaa bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom booñaa bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbër yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi ma ko teg bëri na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la ko quoi. man li ma wax moom laa xam mu sama kopp fol de te ci kàttanu yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu maa ngi koy xaar pare naa ci lépp te maa liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man